Euh, borom xam-xam yi di soññ di waar toujours loolu rek la ñu war a def parce que euh, nit ki da nga war a njëkk a xam ni que ñëwuloo fi pour neen fii da nga fi gane si rek waaw donc euh, lim leen di njëkk a conseillé mooy nañu gestu kan mooy borom bi subhanahu wa taala waaw di def obligation boo xam ne moom lañ leen santaane parce que ëllëg dina metti loolu donc secret nit ki pour mu réussir euh, jaamu yàlla la fonk ay waajuram gëm sa liggéey la te tey boo seetloo ni réew yu ëpp xaalis yëpp ay réewu arab la xam nga lu tax hmm. parce que ñoom dañuy xëy di jàng kaamil bi de hmm. dañuy commencé bagara di jàng alif laam miim zaalikal kitaab laa réew mi fii xuddan lil muttaqin yàlla wax na ko nee na lépp lu nga gis rek tënk naa ko ci alxuraan bi te alxuraan bi amul benn sikki sàkk loolu rek mooy dëkk loo leen fa gis rek moo leen di guider mooy tax ngeen di texe mooy tax tam ngeen am alal ju bari mooy tax doo leen ñee kenn kon mbokku internet Sénégal TV tey jii boo leen déglu li nga xamante ni moom la grand Sadio wax mooy que ni nit ki lépp looy def rek na nga ci gëm sa bopp. Hmm. gëm sa bopp ba pare euh, li nga xamante ne ni mooy sa diine hmm. na nga ko gëm surtout nag diine l'islam yi nga xam ne ñun si lañ bokk. donc nit euh, liggéey liggéey bu munti nekk rek euh, boo ci nekkee na nga gëm sa bopp xam fi ngay teg sa tànk parce que gëm sa bopp li mu ëmb dafa bëri donc tey nag ñu ngi ci émission bi ba tey ñu ngi ci émission euh, talent kese di ci waxtaan ak ki nga xamante ni mooy di grand Sadio di waxtaan ak grand waaw donc tey jii nag franchement am na ay tableau yu nice yoo xamante ni gis nañu ko fii ci kër waaw léegi bu ñu bu bu Olyfa daanee damay jëlaat parole bi rek ne ko les gars mooy artiste, marquez vos empreintes comme ni ko kii defee comme ni grand grand Khalidou Kassé defee il faut marquer vos buts gis ngeen moom fu mu jaar il a laissé des traces te le talent talent moo ko ko may donc gëm leen yàlla ngeen gëm seen bopp fonk seen seen seen i diine vous vous en serez là inshallah. allah vous êtes appelé à être là ku am talent rek ñun la ñuy wër émission bi talent kese la talent kese la boo sentir ne yow danga nga am talent talent kese nga dañ lay ñëw seet si nga wax ñu loo mënee ak loo mën léegi grand Sadio bon peut être signalé nañ ne que cinq minutes moo des si si léegi yow ñan ngay remercier si dernier moo maa ngi remercier sama li ngay ñaxtu yëpp ak li ngay ñaxtu yëpp surtout waaw bon euh, euh, morom artiste yëpp fàttewuma ci kenn moo mon ma ci lim mais quand même que mention spéciale à ak du Kassé et jëm ci yàlla Amady Krembay ñu koy ñaanal yàlla na yàlla c'est suuf ci kawam euh, may remercier aussi ben grand boo xam ne Amadou Kane la tudd dafa euh, dafa investir ci man bon voilà quoi et puis bon côté qui bi de du mon ci wax parce que xam nga artiste bi da dem ba am benn maturité léegi il faut tamit artistes yi gëm loolu mooy ni que da ngay am jom man tey jii nii duma dem ba reyante ba yegg fi tubaab yi gëm mooy yóbbu ma seen dëkk bu may egg aéroport tu vois presse bi dafay ñëw fu ma dëkk presse bi dañ fay ñëw euh, imaginel euh, lu toll ni rajo Bruxelles ah, ñu lay yee si ne leen bon tey foog nga dimbal nu nga defar ñu reportage def ay émission ay TV5. donc voilà ñëw waaw waaw nga ñëw sa dëkk gars yi xamuñu la mais yow calculé au loo tamit quoi xam anyway donc man je travaille en freelance je suis là aussi pour le Sénégal parce que Sénégal bi yàlla moo def man ma juddoo fi bien que sama origine feneen la mais yàlla comme def na ma juddoo fi dama fi am part tu vois donc mais tamit du ma ñàkk a fayda dem seeti qui que ce soit man maay Sadio.

et puis ñu ci wax tamit lu baax moo nekk suñu moo nekkoon suñu yité foog naa tamit blessé wuñ kenn te bu ñu blessé nit tamit nañ ñu ko baal ça veut dire à la prochaine ñoo ngi pour seet la yow mi di am yi euh, ñu ngi ci suñu njeextalu émission talent kese parce que talent kese boo ñu ko déggee mooy euh, ki nga xamante ni moom talent kese la am donc tey jii nag xam naa li ñu leen indi neex na leen ñu ngi remercier euh, suñu caméraman ñu koy wax Moussa Moussa Ndione di remercier aussi ki nga xamante ne nii moo di ay Aïcha donc tey jii nag ñu ñëwoon seet ki nga xamante ne nii moo di Sadio defe naa ni neex na leen torop day tey yow nag yow mi nga xamante ni yaa toog sa kër wala nga nekk feneen wala feneen nekk. ben talent bu am talent bu nga xamanteni ni mi ci sa biir di nelaw xamal ne dinañ la fekk sa fi nga nekk parce que talent yi rek lañuy wër lépp looy def rek te am ci talent rek inshallah dinañ la fekk sa ba fa nga nekk franchement ñu am plaisir dëgg dëgg dëgg bu reuy sax ñëw franchement ci grand sañu tay mom xam nga rek tay mom man dama dama contane ba sax mënuma wax parce que li ñuy wax rek ne adina bo ci nekké da ngay gëm sa bop ñafé parce que lool mo lay may tay li nga xamanteni ni euh mom nga bëgg am waaw ah, ginnaaw bu ñu santé yàlla julli si yonent bi sangu sang yi euh, ñu ngi remercier ñëpp di wax euh, à la prochaine incha allah ci seen benn seen benn émission talent kese jërë ngeen jëf. Ah.